ولنا منوكو قول والجن أو في الملك المنوكو رزقنا دار الفجاج عدنا منوكو قول والجن أو في الملك المنوكو رزقنا دار الفجاج عدنا منوكو قول والجن أو في الملك المنوكو moo jommalul boppam soxna jaara moo deebi dey soxna jaara seetee ci àdduna manul baaxaw bindi wal jinn aw bi malikin manul baaxaw baba yi jël di jibee ñaata yaram wa def wa wulaw soxna jaara buggee yoon kon binde saarax ah. nga te foo nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke jox barke waayu nga daway nga te forox nga te foo nga sell noppi di sellal yow la yàlla jox barke waayu nga daway nga te forox nga te foo nga sell noppi di sellal yow la yàlla jox barke kiin woolu daj la daj xajul cim nen soxna jaara la woolu dëgg xaajul cim nen. maam soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. maam soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. maam soxna jaara la lu woon. dëgg la dëgg xaajul cim nen. maam soxna jaara nu war kii nu woolu doj la doj xaajul cim nen soxna jaara la nu woolu waaw jaban soxan cuune du nu war kii nu woolu doj la doj xaajul cim nen soxna jaara la nu woolu du na julli te jaaw pul mus na julli te wir dul duura xëy sangam tuubal dal di war këram buubal pul na julli te jaaw kon man la doora bay sangam tuubal war karam buubal war ah. ah. këram doora xëy sangam tuubal war këram soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram lu ci ay jëkkandoom lu ci njëkk ci jéemam soxna soxna Anta Njaay ma soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba waral seeru ci gaawandi na ci Bambay jaamam jam sayir la jambaatin moo waral moo de baxaar tayir la jàmbaatin la moo waral moo def baatin la moo waral وسلم Awru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer ba dab yàlla daara ba seen geneel ba muy nii dal Awru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer man Awru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer man Awru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer man Awru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer Maam Sawru Faal Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer Maam Sawru Faal Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer Maam Sawru Faal Sëriñ Tuuba ko jaabal mooy bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am bamba ab la jëye may la am moo jaare yéene jaare bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am bamba ab la jëf la muy jëf yéene waral kërug buuram yëfarit la muy jëf yéene waral kërug dooram ab la muy te boole koog yéen ngir ma dee leen jëf te boole koog yéene. moo tax it jullit war nañ jëf. moosul ween ku dee mu di war na di war taanaan te kaw sara ak leela taxoon moosul ween ku dee di war na di war taanaan te kaw sara ak leela taxoon moosul ween mu koy ngëneel ndaw ngoolal mu teel a saamaan daw ngóolol mu teel a sàmbaroon la ne rasulalaay jërëjëf mu mel ni gëlaat mu nangu koy ngëneel daw ngóolol mu teel a sàmbaroon jàpp lu baax lu baax di fanaane xar baax boo doon keneen di wax ba mu dem dal di wàññi sax dara ngëneel ya ca feeñul jafe nga ci jaar ci wàllu ay jabar ak jabar jooju doom dama waar danaa ko doon jabar ba du ma jaar yaa doy waar dama di waxtaani musulul jóg di seetaani musuloo wax bañetaani moo toroxal seytaani walwal déggate fi kenn kumar maa ko gantu tey bañawal soxna jaara boo ko liggéey nambolaan naan walwal déggate fi kenn kumar maa ko gantu tey bañawal soxna jaara boo ko liggéey nambolaan naan walwal déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu déggate ne fi kenn war mi dem na fu ne ngeen ji jéema day gandile ñi nangoog ni gantu bamba fépp lay darale waaye war mi dem na fu ne ngeen ji jéema day gandile ñi nangoog bamba fépp ngeen gi ceebo tey gandile ñi nangoom ñi gantu na ganna fu ne nag gi ceebo gantu du te bamba fépp lay darale waaye na fu ne gan gi jaama day jënd de ñi nangoo ñi gan gi lay dimbali war ni dem na fu ne gan jënd de ñi nangoo ñi gan de bamba ñëpp lay dimbali ku yabu daaw ku bañ bakk baa ngi kenn terewul ñun ñi gëm dañuy texi ngi ngan ñi ceeba faw mu wal terewul nun ñu gëm dañuy texe ngir ngeen ji ceeba faw mu wal ku yebu ceeb ku yebu wal nu ko gëm dañuy texe ngi ngeen di ceeba faw mu war nu ko gëm dañuy texe ngeen di ceeba faw mu war nu ko gëm dañuy texe ngi ngeen di ceeba faw mu war nu ko gëm dañuy texe texe ngi ngeen di ceeba faw faw mu war ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool ñi ko gëm dañuy tere ngëm ji ceeba faw mool dama ne ceeba dem na bu ne di takk ba tey ci gi la wax dal na yaram déglu leen ta suufi ngi tey ku yemu gas ku yemu gas takk baa di jënte reewu nu ndagam dañuy jege jërëjëf ba fawu mu war